muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. wal qalami wa ma yasturuun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 بنعمة ربك بمجنون salaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp ci turu sëriñ bi ak ci turu imam Cheikh Mouhamadul Bachir Lo ak sëñ Xaadim ak sëñ Isaa ak mboolem seen mbokk taalibe yi nekk fii ci jumaa ji Masalikul Jinaan <clears throat> di leen siyaara ci bés bu tedd bu màgg bi ñu jóge muy màggaluk Tuuba di ñaan yàlla lépp luñ ci jaamu yàlla nañ ko yàlla nungul te ñu def ko ay at yu bare bari bari ñaan cheikh mohamadul muntaxa mi fi nekkal sëriñ tuuba ak njabootug sëriñ tuuba gi yàlla yàggal leen fi wéral leen te ñu ànd ko ñoom ñu am benn xibaar rek bu ñu leen bëgg xibaar depuis daaw ci ndigalul sëriñ bi dafa am ay étude yi ñu doon def fii ci jumaa ji te maire de Dakar ñu koy wax Barthélemy Diaz amoon ci ay nisër yoo xam ni yàgg na nga xam ni sëriñ bi sax a ko bëggoon a defal boppam ak mbokku taalibe yépp mu ni ci maanaam politique municipale bi nga xam ni ñoom ñoo ngi koy def dañu ñu cee bëgg a wuutu muy maanaam loo xam ni dafa féeteeg courant jumaa ji ñu defoon ay étude ba études yi yemb bi ñuy jub màggal gi lañ ko bëggoon a tàmbali yàlla def xat-xat waajtaayu màggal gi tax ñu ni leen tey bu ajjuma bu ñu jullee ba pare dinañu dem fii ci pàkk bale ca ginnaaw ñu posé fa première pierre boo xam ni mooy centrale énergie solaire bu ñu bëgg a def ci jumaa ji nga xam ni ñëw nañ fi ak ingénieurs yi fi woon ak techniciens yi nekk ville de Dakar lu jege at ñoo ngi ciy liggéey ba mesurer nañu puissance bi nga xam ni moom la ñu soxla ngir lumière yi jumaa ji ndax xam ngeen ni jumaa ju toll nii consommation électrique bari na facture yi ñuy jot bari na waaye yàlla ngi ñuy defal sutura booba ba léegi ñoo ngi ci nab nabi ak mbokku taalibe yi nga xam ni ñoo ngi ciy dugal seenu ñàq ñu di ko fay ndax courant bi cher na lool ñu ni nag ñoom dina ñu wuutu ci loolu nga xam ni bu ñu jëlul léppit day daal di nekk ñaari courant boo xam ni solaire lay doon ak normal waaye natt nañu li fi ne ci ay lumière ak climatiseur ba defe naa dinañ ñu defal centrale boo xam ni dina mën a jël làmpi barab yépp ca gannaaw it làmp yi nga xam ni bii mooy làmp mbedd yi loolu lépp mairie bi jëlool na ko en charge moo tax courant bi di dem ci ay 3 millions 3 millions 500 mille par weer ndekoon dina ko ëpp foofu léegi nag ñu bëgg fay def énergie solaire mu ne woon nag tey jii dina fi ñëw bu ñu jullee jumaa ba pare kon bu ñu jullee jumaa ba pare nag maa ngi ñaan mbokku taalibe yi kilifa yi nga xam ni ak njabootug sëriñ Touba gi ko fekkee ñu ànd fii mu teg fi première pierre bi ndax dafa bëgg nee nañu buñ ko tegee bu altine techniciens yi ñëw commencé liggéey ca gannaaw it indi loon nañ ñi fi ku dem fee ca ginnaaw na ko xool ay wanag ndax wanag yi fi nekk am nañu lu war a jege ci ñeen fukk ak juróom-ñett yuy jigéen ak yuy góor ñoom indil nañ fi ay cantine yoo xam ni ñoo ko fi installeel seen bopp lu jege ci ñaar fukki wanag ak ñeent te nee nañu it dinañu dolli bu ko defee nag ñu koy sant ci turu sëriñ bi di ko ñaanal yàlla moom moo xam ak bëggam yàlla nag ko yàlla defal ndax fii barabu sëriñ Touba bi dafa am luy aadaam lii aadaam moo tax sëriñ bi def fi barab bi mooy bokk kook jullit àddina bi yépp mu nekk néegub yàlla boo xam ne bii dañ fiy jaamoo yàlla jaamu yàlla googu nag képp ku ñu ci dimmili nanga xam ni def nañ la xarit ndaxte ñun amuñu lu dul néegu yàlla amuñu tamit lu dul sëriñ Touba te fas yéene wuñoo wéy lu dul ci ndigalul sëriñ Touba lii may wax nag du samay kàddu kàddu sëriñ bi la mi koy sant di ko gërëm tey ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla defal ak bëggam ñoo ngi jéggalu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.